mbokk yi ñuy seetaan am nañu mbégte loolu dellu siwaat ci toppi njeexit ak mboorum sëriñ Koki Njaga isa ba tax ñu ñëw ci dëkk bi nga xamante ni mooy njuum demoon nañu ci barab yi nga xamante ni fa la tëdd tey nag ni ma leen ko waxe woon ci ndorte la dama war a ak Amadou Baxaw Jaw ngir waxtane jëm joju di sëriñ kokki njaga isa kon damay jox jawdin amadou baxaw jaw mu nuyo ak bokk yu ñu sétane ñu doga tabbi ci waxtan wi amadou baxaw waaw ma ngi leen di nuyu yeen ñep di contane ci ni ngeen ñëwé <clears throat> di top mbor di topp mbooru sëñ njaga isa sëñ kokki njaga isa nak dafa am jaar-jaar bu reuy bu mu def walu gaar gaar bu rëy mu def Fuuta gaar gaar bu nekk waal def waalo sëñ Kokki nag mooy Sénégal yëpp mooy mbokki ñëpp kon nag wax mbooram wax cosaanam dafay nekk mbir ma nga xam ne day yitteel Sénégal yëpp te jàngat bu rëy li ki nit ñi am kon nag euh, sëñ Sil ñu ngi kontaan lool ki ni nga ñëwee euh, ñëw bëgg ñu saytu mbooru sëñ Kokki fii ci waalo euh, loolu ñu ci laaj nag daanu ci waxtaan yow. jërëjëf Amadou Bakhaw Diaw mbokk yi kon dañuy dal di sóobu ci jëmm jooju di sëriñ kokki njaga isa sëriñ kokki njaga isa mën nañoo jàpp ni mu ngi gane jamono ci atum junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk muy 1770 lu tax xare bi nga xamante ni ànd na ko ak ay waajuram ñu xare ko ak dameel amari ngoone ndeel a kumba ndax dammeel amari góor ndeela kumba muy damel bi may maam maaram lewu Mbacke Bawol mi ngi toog ci ndameel gi ci atum junni ak juróom ñaari téeméer ak juróom ñeent fukk 1790 waaye ba mu toogee rek dafa faat ama Lamine Sarr moom caarem caareen jama sëriñ si nekkoon njàmbur nag sëriñ maanaam waajuru sëriñ kokki njaga isa bi di sëriñ ahmadou faaxu jë ànd ak rakkam ngura faaxu jë ak ball faaxu jë ak sëriñ njàmbur set taxaw xeex ak dameel boobu te xeex boobu wax nañu ni sëriñ kokki njaga isa ba mu cay dem ànd ak waa juróom yooyu ci fukki at ak juróom-ñeent jàpp ñaar fukki at la toll kon su fekkente ni mille 90 euh, ñaar fukki at la am. Mhm. kon mën nañoo jàpp ni 1770 euh, ci la euh, feeñ. moom nag soxna maanaam Serigne Kokki Ndiaga Issa Diop waajuram mu jigéen mooy soxna Issa Dieylo soxna Issa Dieylo soxna ni mooy waajuram. soxna Ndakani soxna Koddu Diop mooy waajuram waajuram mu góor mooy Serigne Ahmadou Fa Khoudia moom sëriñ Kokki eh, Maxtaar ba mi eh, sañc eh, Kokki yàlla dogal nag moom jëmm jooju di sëriñ Kokki Njaga isa ba mu amee fukki at ak juróom-ñeent jàpp ñaar fukki at ci la ànd ak waajuram yooyu ñu xeex ak dameel amari wére ndeel a kumba xeex nañu paalo sëriñ bi sëriñ si ceddo yi bom leen ñu dellu xeex cax yu ca wetu pire ndax xam ngeen ni sëriñ jàngale àlluwa ak daa la ñu xamoon ci moom xale boobu itam yàlla dafa dogal euh, dameel moo leen bom topp leen ba ñu dem Ndakaaru sëriñ Ndakaaru jàppale leen dal ci kaw dameel ba dameel dellusi si euh, euh, Kajoor kon loolu moo tax ñu ni mille sept cent soixante-dix euh, ci la feeñ yàlla dogal na ci atum junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn xeex bi nga xamante ni moom la ñu mujj xeex ak dameel Amari Ngoone Ndella Kumba Jaariñ ca la sëriñ Balla Faaxu Jë bindoon leetar eh, almaami Abdul Xaadir Kan ngir mu ñëw jàppale si leen ndax xam ne ni eh, eh, almaami Abdul Xaadir Kan révolution Torodo boobu mu ngi ko amaloon ci atum junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom benn yàlla dogal nguur ga nga xamante ni moom la fa fekkoon mu teg ko mu jële ko fa teg fa nguurug lislaam loole ci la sëriñu eh, njàmbur si doon roy ba taxoon ñu woo ko ci xare boobu yàlla dogal na xare boobu itam bañ ko xeexee muy li ñuy wax la bataille de Bongoy mhm. eh, sëriñ Balla Faxuja mi bindoon lettre ba foofee eh, ca xare ba ca la des foofe itam damel daf leen a bom ba mu leen bomee ba almaami Abdou Khader Kan di dellu dañoo ànd ak moom sëriñ Amadou Fakhoudja ak Ngoura Fakhoudja ak seen doom jii di sëriñ Kokki Njaga Isa ba ñu demee bàyyi nañ fa seen doom jooju ñoom doon dëpp di dellu si ba ñu ñëwee ba fa ñu wax loofe foofe la ñu leen kar fa la leen faate waaye yow di bi nga xamee ni euh, almaami Abdou Khader Kane ñu ngi koy fexeel li tubaab di wax coup d'état mu xam ni moom bi dañu koy faat ci la wax Euh, euh, sëriñ Kokki Ndiaga Issa mu ñibbi mu ñibbi dellu euh, Kokki ngir bañ bokk ci ñi nga xamante ni bii danañu leen faat ci Fuuta ba mu ñëwee nag maamam ji nga xamante ni bii mook sëriñ Kokki Ndiaga Issa mook sëriñ Kokki Moxtaar Ndumbe ñoo bokk ndey ak baay di sëriñ ma Ndumbe Jóob moom moo yoroon sëriñ Kokki Ndiaga Issa ak Mandumbe Xëri Jaxate mi nga xamante ni euh, euh, Samba Faxuja mi taaw Sëriñ Kokki Njege Isa mooy waajuram kon seen maam jooju moo leen yoroon ginnaaw bi nga xamante ni bii seen waajur ya euh, bàyyi ko nañ fi ba ñu fa nekkee ba sëñ Mandumbe di leen nag dama bëgg kenn ku nekk ci yéen sañ ci ab dëkk bi mu laajee sëriñ Kokki Njaga Isa mu ni ko man dey sama dëkkub maam bee nga xamante ni sëñ Maxtaar Ndumbe moo ko sañcoon te mu gent moom laa bëgg dellu ngir yeesal ko mu nu may xëri ni ko man dey fee nga xamante ni fa la sama waajur tëdd tëdd di eh, ma sàmba faa xujja laa bëggoon ca wetu déqale nga sañcal ma fa mooy sañ mooy dëkk bay ñuy wooyee tey euh, Kër Mandumbe xëri bi loolu amee sëriñ Kokki Njaga Isa ni doomi baayam jooju di magam di Mandumbe xëri jaxate dama bëgg nga jox ma sa fas yi ni maama Mandumbe yooyu dama bëgg nga jox ma sa fetal gii bañ nga ko joxee mu ni nag dama bëgg ànd ak yéen ngir dem ngeen jàppale ma ma yeesalaat kokki wax nañu ni ba mu demee euh, la mu fa njëkk a def ci ay kër téeméeri buntu kër la ak fukk ak ñeent di téeméeri saari alxuraan yi ak fukk ak ñeent euh, bi nga xamante ni bii loolu am na nag mu sanc ko ba euh, kokki doon euh, ab dëkk mën nañu wax ni mu doon ab dëkk ci la daal di taxaw nag ngir samp kër maanaam li wut ay dellandoo yàlla dogal na itam njabootam gu barkeel gii danañu ci ñëw ak jawlin rawatina sëtam yi ndax njabootam gu jigéen yi ci kër kilifa yi la dem ba am fa sët yu baax yi nga xamante ni bii moom la fa am sëriñ kokki njaga bi mu sañcee eh, kokki ba noppi ki nga xamante ni bii moom la njëkk a dëkkoo mooy xarjata muyib lii wala fi di wax ni mooy ab aawom mu am ca benn doom bu góor ñu di ko wax ma ndumbe xarjata teg ca soxna ndak kanni ni koddu ballaloo mi nga xamante ni moom benn doom bu jigéen la ci am muy ise jeey ndak kan ni nu ci ñëw ndax moom la dameel may sa tend joor eh, dëkkoo woon eh, dëkkoo na itam soxna faddaam am ca Ngura Fat Daam Maxtaar Fat Dem ak Astuballa Fat Daam dëkkoo soxna su tedd muy soxna aminte yàlla Jóob am ca Ahmadu aminte Maxtaar Ahmadu aminte yàlla Maxtaar aminte yàlla Samba aminte yàlla Penda Buya aminte xëri maam aminta yàlla mi nga xamante ni moom la ñuy jox tafsir euh, maxtar ndumbe mu am ca euh, soxna aminta loo ñu jox ko ku tedd ki mu am ci Cheikh Moustapha El Karim ak euh, Serigne Bara Mbacké tafsir maxtar binta loo mhm. moom soxna bint Fall ca Ngiig Fall moom moom nga xamante ni sonaloon na feder bu lool

Moodu maam soxna Fall Ndaak mi waajuru soxna Madou euh, maam soxna Fatima Madou maam. mi waajuru euh, Cheikh Mouhamadul Bachir. Euh, teg ca Balla soxna Fall. Masamba soxna Fall ak Momar soxna Fall. sëñ Kokki Jaga Issa dëkkoona soxna Absa Mbakke Lawbe Touré moom Serigne Ahmadou soxna Bousso moom maam Maaram. mu taawloo fa aminte njaga Diop miy waajur Serigne Makhtar Samba teg ca soxna Fat Issa Diop miy waajuru borom daarul Mouti ak soxna Ndumbe Xari Diop mi nga xamante ni bii mooy waajuru Serigne Ahmadou Makhtar eh, Diop. ginnaaw bi nag la ñëw fii ñu nekk tey jël fii eh, soxna suñuy wax Fatoumata Alwali eh, Diop moom ñaari doom la ci am. muy Makoddu Diop ak Fatou Diop kon eh, lu jiitu muy eh, dëkkoo soxna si bi mu sañcee kokki ba kokki tàmbalee doon ab dëkk nag jawriñ am na lu doxoon diggante sëriñ kokki njaga isa ak dammeel bu ñu doon wax birëm Fatma cubb kon dama lay bàyyi nga dugg ak ñun foofu ndax xam nga ni mbir mu Fatma Thioub faloon na Serigne Kokki Ndiaga Issa Serigne Lamb gannaaw ba am na lu ci xew du ma la dog naa bàyyi nga ñëw ak ñun foofu waaw xam nga <clears throat> jamono bi dama Fatma Thioub bu mu faloo mhm. fekk na sëñ Kokki nekkoon Fuuta ca Kobilo mhm. euh, almaami Abdou Khadre nag buñ koy assassiné daf ko xoon ñibbil Kajoor mu ñibbi Kajoor nag tombeek Amari Ngoone Ndeela Kumba Saay sànq sax yaa ngi wax ne Amari Ngoone Ndeela Kumba danaa la wax ne la ñëw nga ci dëkk bu mu miin. waaw ndax Amari Ngoone Kumba Ndeela Kumba. Mbaraay waaw moom <laughs> mooy moom mooy bu gën bi nekk. waalo waalo waalo waalo ndax def na fi fukki at ak ñett. Mhm. fii ci boo ñëwee fii ci ma ci kaw. am na fa dëkk ba nga xam ne daaw dem ba maa ngi jaawale daaw dem ba moo demoon Mbaraay. moo demoon Mbaraay Mbaraay. mais moom ci boppam ñëw na fii waalo. Eh, brak ci boppam jox ko suuf mu dëkk fi. def na fi fukki at ñett. ah bon waaw en tant que damel wala boobu doonagul damel non boobu Birame Fatou Penda moo ko génne Kajoor. ah waaw moo xam euh, nijaayam nijaayam moo ko exilé woon woon ko indi ko fii. Mhm. mu boo demee Richard Toll gii nga laajte Bargal. Mhm. daanaka Bargal la nga demee. Mhm. bu mu ñëwee suuf su ko Brak joxoon. Brak Fara Penda euh, Aram Sall euh, tegreel mu fab dëkk ba tudde ko bargel comme bargel Kajoor. bargel waaw. boo demee léegi jàkkaarloog ndombo. nga ne ana bargel duñ la bargel la nga ne. kon mu yàgg fi beneen bee tam am na lu mu doon yokkal. Mhm. mooy que ba nga waxee xare bu ñu xare bi Paalo. Mhm. xare na fa yaa ngi doon wax ne mënu faa ko jëm mais yaa ngi am na ku am solo ka nga ca fàtte ci xare ba mu di Medoune Sankhewar. waaw oh, Medoune Sankhewar. Euh, ak ba nañu ko fa sax. am na ca maam maami Lat Joor. waaw ku jur bàyyi Lat Joor. moo jur bàyyi Lat Joor am na ca gaañu gaañu. waaw am na ca gaañu gaañu. Mhm. léegi nag Birame Fatma Thioub bu mu ñëwee <clears throat> dafa njëkk juboo ak euh, sëñ kokki ñibbi si ñu juboo sëñ kokki defaraat kokki mais bu mu defaraati kokki nag denc ay soxna ca kër yu mag yëpp. Euh, daara kokki ya kokki ci bopp wax nga ni cent quatorze famille dafa dugaloon. kokki commencé sëq. sëq ba am doole lool euh, réew mi yëpp wuy si ko mu réew mi yëpp ànd ak moom te nag xam nga ni sëñ kokki fekk na am na expérience. Mm-hmm. fekk na xare na. xare yu bari xare yu bari. donc damel ci boppam da ko bàyyi woon xel. bàyyi woon ko xel nag ba jàng ba dee ba bari nag da mel ni kii bu doole ji di bari rek si mën na si hmm. commencé ko fiiri maanaam fiiraange moom moo moo fa dugg voilà fiiraange dugg fa nag ñu commencé am histoire ñu xeexoo mais mel na ni lu jiitu ñu xeexoo sax hmm. da mel def na ko sëriñ sëriñ làmb gannaaw boo mu jël bu naam sëriñ bu naama kunta euh, def ko xaadi fële euh, loolu def naa ni leen lu leen njëkk boole da ko def sëriñ làmb ok mais comme que Damel Birame Fatma ci bu leen hmm. ndax sëriñu kajoor yépp mosoon nañu ànd def benn ligg xeex ak damel bi mu am benn sëriñu naaram bu naa mu kumba mu jox ko foofu mu kunta waaw bi naa mu kunta naar la bu jógoon Tombouctou ay waajuram daawoon jaay ay fas mu fab ko jox ko lew bu rëy wetu dànq def ko xaali kajoor bu mu ko defee xaali kajoor nag loolu moom metti sëñ kokki njëriñ gis mooy waa Njaasaan waaw waa Njaasaan ndax nag Birama Fatou Mbacke bu tam en tant que politicien responsable politique Kajoor wóoluwul woon sëriñu Kajoor yooyu di def xaali Kajoor mu dem wut benn sëriñu naaram teg ko fa <laughs> mais bu mu ko defee nag ñu le fiir ko mere ko sëñ ko ki njege yi sa nag fekk na këru Kajoor yëpp jigéenu Kajoor yu bokkoon ci kër yëpp denk na fa soxna <laughs> eh, fu mu nekk fa nag ko ki sëq ñëpp wuy si ko mu am doole ci la moom ak Dambel ñu commencé am problème eh, ñu commencé nag xare songoog Dambel damel takk xare song ko kokki gañe ko bu mu ko songee kokki gañe ko nag ci li ko génnee biir kajoor mu génn biir kajoor ak gang euh, xareem jëm waalo ñëw bu ci frontière waalo ak jolof ak geet mu sab foofu toog fa lu ma diir lu ma juróom-benn weer euh, dafa am ñu wax ni sëriñ kokki njage isa gàddaay na ñetti gàddaay gàddaay gu njëkk woogee mu demoon ci euh, Fouta Abdou Khader. Abdou Khader. waaw ngay wax ni tam dafa melni dañu wax ni Fouta la jëmoon waye dafa ñëw ba fofa ci seen dëkk bi fekk mu jaxasoo Gile Fatim cham Kumba Jombos comme noonu nga ko waxee dama lay bàyyi nga continuer ndax defe ni ba mu ñëwee am na lu mu fa ndax da leen def ay wala lan sëñ mu ba ci boori frontière dafa mais mu fa dooree diir ci frontière boobu di wut ay taalibe taalibe yu bari jóge jolof am na tëggu jolof bu mag bu nekkoon ñoo xam ma mu dagale fa 3000 3000 fii ñu toll boo ko doon natt armée yu moderne 6 bataillon donc dem mu frontière bi di di mais bu mu amee doole kajoor ki bi waalo nag nekk ci biir guerre civile mu ne nag am naa doole mënatuma dellu Kajoor taxaw ma dugg waalo jël ko. ndax bu fekk ni boobu li ñuy wax pouvoir euh, doole mënoon na ko may. bu yirifaale. Euh, waaw mais dafa bëgg dafa ni bu ma jëlee waalo pare dinaa de jóge dem Kajoor ba pare nag bul fàtte ni euh, Maxtaar Dumbe Samba yi beek texe jaaso. maam gi njóobeen na moom itam ci njóobeenu pecc gi la. Mhm. njóobeenu sëñ ko ki njëriñ itam mi ngi ko jëlee ci njóobeenu waalo googu. donc fu muy ñëw fee itam day wax ni fii sama dëkk la. ah mu ànd ak diile Fatim Jaam ku ma jombos dugg waalo ci dëkk bu ñuy wax ndimb bu mu ñëwee dugg ndimb nag bett fa ku nuy wax mbañ mbàccu mbañ mbàccu nag nee nu góor yiw la woon ku am taar la woon nee doomu bu rakkuli mbabb la nee nu sax mbokki kuli mbabb yëpp ay góor yiw lunu mu nekkoon ku taaru ka nga xam ni dafa daawoon léttu bu daawoon léttu ak di fuddanu li mënoon a xaw mënoon a xawaare voilà xawaare xawaare bu rëy bu sëñ kokki bett ko fa mais nag sëñ kokki da ko woon ndax damel bu mu doon xeexal Birame Farba Thioub moo denkoon jigéenu Mbañ Bàcc ak goroom woon la woon ndax moo te denkoon Mbaba Mbàcc mu mere ko nag lool bett ko fa ànd ak diile Fatim Thiam ku ma jomas rey ko buñ ko reyee nag ci la ànd ak diile dagg lay soldaaram nag dugg biir wàll topp Lac de bi yéeg ci biir wàll nit ñi neenu euh, ànd bu population bi ànd ak moom dugg na bu ci biir waalo brag yobbu ko fen kanga bu brag yek espion brag yëpp ken yobbu da de fait bu muy ñew ba di dugg bir jang ak bir walu fekk ci lay trop tard brag yóbbu mu dajeeg nak brag fi ñuy wax ci wetu euh, gannaaw ndeer ñu daje fa mu gañe brag mu songo wat ak brag fu ñuy wax cargeen ray fay soldaaram mi bare dugg bir biir euh occupé ko fekk fa serigne diri serigne bu njàng bi niko liqamal serigne sëriñ bi dama brag lay nek kaddo bañ ku ko liqaama mu rey ko moo diile jóge fa nag jëm ci Richard Toll mais au lieu que ñu romb Richard Toll fekkoon na Richard Toll tubaab yi commencé woon fa. def ay ah, tool comptoir comptoir commercial commercial di fa bay diile nag dem lakk seen tool. et foofu nag il faut que moo wax la situation bu bi wàll ba diile di euh, bu fa nekkoon bi brak Farapend Adam Sall Mbodj moo doon brak bi ànd ak Linguère Ngëmbët mais ñoom. ba ñu jëlee nguur gi duñu xuloo jawdin ba jawdin ci waalo mooy mooy comme jawdin mbul ci kajoor mhm. mën naa la wax rek ci misaal rek dafa mel ni ki diggante Amadou Mbéri Tall ak euh, euh, Birima Ngóone Latir wala nga jëli teetam euh, Samba Maram Xaay Samba Xaay ak ñoom la ah, waaw voilà donc chaque fois day am grand électeur bi ka xam mooy fal buur bi mhm. ak buur bi mhm. coow loolu nag am waalo ci diggante jawdin ma jow xoor aram bakar ak brak fara pendaanam sal bu rek frappé sal folli ko bu mu ko follee jaw din ma jaw xoor ki boppam jël ay soldaaram ay nit ñëpp gàddaay ñëw dagana làqu ci fii ci dagana gàddaay fi ci la ko brak frappé na aram sal remplacé ko teg fa keneen bu ñu defee loolu ñoom ñaar nañu nekk ci guerre civile jawdin din ma xoor dem fuuta fekk fa amoon dafa soxna altine ba bu mbantu bu ñaaki altine yoro demb ba nga xam ne Mbantu defe naa ni fa la tafsir ma ba jaxu ba cosaano voilà léegi nag ci la waajuram jógee dem jolof dem jolof mhm. famille yu pël yu mooy ardu mbant yi ma joxoon rek dafa demoon takk fa jabar mhm. soxna suñuy wax altine yoro demb wala altine ñaaki mhm. kooku bu mu fa takkee jabar xuloog brag bi ñoo ñu jox ko trois cent soldats mu ñëw moo brag bi jàkkaar la commencé xeex ba ñuy xeex na ci la sëñ ko Ndiaga Issa isi ak diine nag ni taxul mu profito ci jël rew song brak bi brak bi amul doole mhm. ando yu àndoon ak moom yëpp amuñu doole ngallo gi niko ko brak duñu bëgg nga tup nga nangul li la diine wax ndax mom dal mëno fa doole brak bi ni mom mënul tup jàll moom njëmbët jàll dex gi daw dem ndar ci la nak diile Fatou Kiam Kumba Jombas ak sëñ Kokki ni lu ñu dese ak suñu 3000 soldats mooy dem Dagana fekk fa jawdin ma joxoor bu fa nekk bi xeex ak moom comme ça moom wàllu yëpp le 8 mars le dugg richard le 9 mars mu récupéré ba Mbilor le 10 mars mu nekk fii ci ci ci Mbilor. c'était en. 1830 1827 30. non 1830 waaw 1830 8 mars 1830. 1830 combat yëpp kii la ko bind. Euh, gouverneur Brou. 1887 1827 euh, la convention de jafe euh, ak Damel. Damel 1828 1829 ba defaru. Mhm. songo le 8 mars. 1830 1830 8 mars 1830 le chef ak Brak 9 mars mu carrément Richard ci la gouverneur buru nag ni comme dafa lakk suñuy tool man danaa xeexam. dafa lakk ak it seen code ay contrat commercial maanaam li wax ba léegi naan France seen i intérêt. <laughs> seen i intérêt rek loolu nag mooy def Serigne Koki Ndiaye Ségué résistant. Hmm. résistant anticolonial la ndax ku xeex tubaab yi la. Hmm. fetalanteeg tubaab yi. bu mu defee loolu ànd ak Dile Fatim Thiam Koumba Jombas tubaab yi ñëw fekk ma jaw xoor fii ci Dagana. dagale soldats yi fi nekkoon wàllu yëpp mu nekk 1200 soldats ñu jox ko ay yu bare. waxanteeg ma jaw xoor nag ni ko am nañu fi ñetti gaalu xare te diine day wasifa ak sëñ kokki njaga isa fajar gi dimbale nu buy wasifa ci fajar gi mbillóor ñun daanu fab suñuy gaal yoot ci guddi gi ba tolloog mbillóor def ci ay canon yow yéegal ci jiir gi comme ça buñ ko tiré canon rek wasif bi tas rek nga sonk waaw ah, mooy les bateaux à vapeur mhm. léegi nag nga fab seen bateau vapeur mais taalu sa vapeur bi du nga ko fab di ko joow di yot mhm. bu ñu demee ba fajar gi diile ak sëñ kokki dagale teel bi yëpp di wasifa nee nañu bu ñuy wasifa wasifa bi ñu ngi koy dégg njànge ñu ngi koy dégg gaaya à dix quinze kilomètres ndax wasifa boobu moom moo doon nekk riir ba nga xam ne moo doon tiital diwaan bi armée buy ñëw day zikkër allahu akbar allahu ko muy zikkër bi da koy dégg à quinze kilomètres ñuy zikkër nag ci fajar gi buru fab ay kanoom yëpp ba tollook ñoom ci fajar lu tiiri leen bu mu leen tiiree nag armée diine bi fàq song dugg biir Dagana ki la doomu jawdin ma jox xoor bi taaw bi Dagana ay mbokki ndeyam yor altine ba wax naa la yaay ji arnu manti la song diile nag bloqué ko Dagana commencé ko refoulé bu mu ko refoulé tubaab yi nii fexeel ba armée diile bu ñu sore dex gi képp leen ki jéeri ji. ñu ci bari amuñu bàmmeel ci biir dex gi la ñu lañ leen faat. dégg dégg rek léegi so waru bëgguñu ñu sore dex gi ndax bu ñu soree dex gi canon bi du leen mën piri di xeex ak ñoom journée wu di mars bi yëpp ñu xeex ak moom ci fajar gi ba boori timis bu ñaagee ba timis nag fekk na puus ñu leen ba ci fu lac de Guiers nekk fu taway nekk ak fleuve Sénégal. Mhm. nga xam ni croisement la foofu mën loo jàll dex mhm. ndax euh, mhm. dex gu dexu taway bi génn dafa am heure ba nga xam ni day fer nit mën na fa jaar ak fasam dafa am heure ba nga xam day fees léegi nag ñoom ma yow xoor ak armée wàllu wàll yi duñ doon nekk kombaa bi bañ leen song turbu ajoor yi pour ñu nekk ba dex gi fees bu dex gi fees rek doon nu man jàll boo leen rek bës leen ci dex rek ba wax leen duñuy mais boo bàyyee ba dex gi wàcc boo leen bëmaxee duñuy jàll ñu nekk ba dex gi yéeg ñu song leen nag ci taway bi képp fa ajoor yu bare ak seen soldaar mën nañu fay bës leen ki dex gi ak tubaab yi lu ci bare la ndax nee nañu toog nañu lu mat weer géer kenn mënu fa naan ndax néew. ndax néew yu bari. ndax néew yu bari ak euh, boo duggee ci dex gi di xëccoo néew yi ak gësig. ndax bu mhm. néew yu bari gësig dañu bari. léegi nag ci koñ boobu lu ñu jàppee diine bu ñu jàppee diile sëñ kooki njëg yi ànd ak juróom nit moom jàll moom fexe na ba jàll ci beneen côté bi yoxu su dem. Euh, nañu euh, Guilé ca Richard Toll. waaw sëriñ kooki njëg Issa. moom sunu borom mi nga xamante ni ku aar nga aaru eh, aar na ko ba eh, tubaab yi faatuñu ko jàpp nañu eh, giley fatim Thiam Kumba Jombos ko kokki moom sunu borom aar na ko ba jéggi na kon jawdin dañuy yemale foofu premier partie bi maanaam xaaj pàcc bu njëkk bi ci ñaareelu pàcc bi nag danañu ñëw ci naka la tubaab yi def gile Fatim Thiam Kumba Jombos sëñ kokki defe naa ni bàyyi koo na fa ba dem Dakar mais du yàkkamti kon mbokk yi da ngeen topp nu ñëwaat ak yéen ci pàcc bi ci topp